di waxtaanee koor bii passé ñuy waxtaanee sartay koor waxtaanee nañ ko waxtaanee nañ li yàq koor tey li ñuy waxtaanee mooy ngante yi nga xam ne moom la lislaam daganal pour bu dalee nit mu bañ a ñu ne bokk na ci ngànt yi nga xam ne bu da dalee nit mën na bañ a oor bi ci njëkk mooy feebar al mooy feebar aw xawfu shiddati bi sawmi wala mu ragal sax feebar na waaye bëgg naa or waaye ragal na bu ore tat tat jafe-jafe mën na ko dal ci biir koor gi ngir feebar bi wala su wala aw taaxuru mu ragal su ooree dafay yéex a wér mooy feebaram day yéex a wér wala sax coono mën na ko ci fekk bu ooree ngir feebar bi mu feebar te loolu bu ñu seetee mbooleem ngiri ñetti ngir yëpp dëppoon nañ ci muy ngir Abu Hanifa ak ngir Shafi ak Malik ak Hanbal waye hanbal neena mom liñ sopp ci liñ sunna ci mom moy mu dok sip nañ ci mom or waye bu ko léré na bu ci oré lor man na ci am nak man na ci perte bakanam su boba dafa war ci mom mu dok haram na ci mom mu wor bokku na ci ngant yi yi nga xamné bu dalé nit man na baña or moy jigen ju ëmb ak kiy nampal su fekke ragal nañ jigéen ji ëmb lim ëmb ci biiram fekkee ragal na mu loru su boobaa lislaam may na ko mu bañ oor kooku dagunut ci moom mu parce que bu ooree mën na lor boppam mën na lor doomam parce que alxuraan dafa wax ne wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu leen sànni seen bopp ci alkande kon jigéen ji nga xam ne dafa ëmb ragal na ne bu ooree doom ci biiram mën naa loru wala ci boppam mën na loru su boobaa lislaam may na ko mu dog ak jigéen ji nga xam ne dafay nàmpal su fekkee ne dafay nàmpal am doom di ko nàmpal te bu wooree du am lu doom nampé té doom buy namp man nako jural muy muy muy muy muy mir, su boba l'islam may nako mu dog koram ba kor gi ba nampal ba paré dogo wor bok na ci timit ki nga xamné da fay tukki ki tukki may nañ ko mu dog koram su da fay tukki tukki go xamné man nañ ci wañu julli mel nit mi tukki tukki bo xamné man na 70 km am na ñu ne quatre su boba may nañ ko mu baña or alxuraan dafa wax ne in kuntum ala in kuntum ala safarin dafa wax ne bu ngeen nekkee ci tukki su booba may nañ leen ngeen dog kon kii tukki buy tukki tukki boo xam ne mën na ko wàññi su boobaa may nañ ko mu dog kooram waaye su fekkente bi nag woor na nag moo gën bu fekkee woor na moo gën surtout jamono ji nga xam ne euh, transport bi dafa yomb lool lool surtout ma nag ay Touba Dakar Touba wala yeneen autoroute yi nga xam ne tey mën ngaa xëyee fii balaa midi nga àgg benn coon du la ci fekk su boba nga or mo gën waye bo or tamit lislaam may nalako mar alquran wa anta sumu khairul lakum bu ngeen oré lolu mo gën légui jigen ji nga xamné ne dafa or ba ci mbeur ak dikkel ko wala mu am dom su boba may nañ ko mu dok korom jigen su fekke dafa or ba ci bir rek mbërëg dikkel ko wala mu gis dret bi nga xam ne mooy kon su warna war na ci mom mu dok korom te it xaram na ci moom muy or parce que or nit du balaa mu ko def mooy foog mu set bu ooree nag or gi dafay doon or goo xam ne baatil lay doon or gi dañ koy neeral duñ ko nangu sa su boobaa dafa war a fay ki nga xam ne dafay dog ngir mag lim nekk mag koo xam ne dem na ba am ay juróom fukki at juróom-ñaar fukki ay juróom juróom amatul da doole jum ore kon su boobaa kooku liñ sopp ci moom mooy màgget rek su boobaa wala koo xam ne dafa feebar yaakaaruñ feebar mu wér fer bi day sax ci mom bu koy tere wor su boba koku du or day def chaque jour rek génné da fay lele day génné lu lok euh, muddu muddu yent yalla muhammad mu jox ko ben miskin koku non lay oré ngant yoyu waxtu bu dalé ni rek su boba man na koor wala ki koor ba ci bir rek euh, xam dab ko wala sadum jinne dab ko su boba koku su boba may nañ ko mu koram kon yi moy nga xamné ngant yi nga xamné su dalé nit man na baña or ñi jox dajé inshallah allah ba suba ñi wax lan li nga xamne mom lañ sopp ci koor assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh